ba mu jóge woon ci ab tukki ca biti réew waaye boobaak léegi ay bonne volonté ñu ngi jóg di seeti ñi nga xamante ni moo di famille kebe ngir ñu jéggal ki nga xamante ni moo di Cheikh gajaga waaye nag mu mel ni rek bëy wéy na mbuus ndax bu ñu sukkandikoo ci kenn ku jege famille Kébé ñenn ci bonne volonté yooyu di ñëw di arranger mbir mi ñoom sax ñoo sant ki nga xamante ni moo di Cheikh gajaga muy wax wax yu ñaaw yooyu jëmale ko ci soxna Momy kebe bu ñu sukkandikoo ci moom ba léegi nag ñu bëri ci ñooñee soxna Momy Kébé da leen daan dimbali waaye ba mu décidé ba léegi nii day dakkal mbir moomee ca la ñu dem rek engagé ki nga xamante ni moo di Cheikh gajaga muy jël wax yu ñaaw di ko teg ci deru soxna si nga xamante ni def lu baax rek lañ ko xamee. bu ñu fàttalikoo nag ci atum 2015 Cheikh Gadiaga nag yoon tëjoon na ko lu toll ci juróomi ati yoo xamante ni ñaar ya da koy tëdd loolu nag ginnaaw ba nga xamante ni doon na jéem a tiriande ki nga xamante ni moo di homme d'affaires bi di Cheikh Amar lu toll ci 30 millions képp ku ñuy wax Nabou Diallo ñu gën ko xam ci Nabou Osé te mu doon mbubboo Mimi Touré mi fi nekkoon premier ministre. ginnaaw condamnation boobu nag Cheikh Gadiaga génn prison ginnaaw bi nga xamante ni dafa amoon ab grâce présidentielle waaye rek mu mel ni taxul Cheikh Gadiaga bàyyi dóor yi ndax ci atum 2017 mook ku ñuy wax Moïse Rapino am na ay deal yu bëri yoo xamante ni teg nañ ko ay personnalité yu bëri yu ci mel ni ay ministre ak ay directeurs généraux de société ci loolu sax jàppaatoon nañ ko ci atum 2017 boobu ba juróom benn weeri kaso yoo xamante ni yépp da koo tëdd ak amende cinq millions de francs CFA boo xamante ni waroon na koo paye waaye condamnation yooyu la muy bëri bëri taxul benn yoon ba Cheikh Gadiaga bàyyi dóor yi nga xamante ni moom la nekkee li dal la Olof Njaay di wax ni alkaat yi du bàyyi